Pile ziar naa la. nee na maa ngi ziar. naa tey ziar Idi da ko waar. waaw ñu ngi sant yàlla rek di julli si. waaw yaa ngi si dara. waaw non ñu ngi sant yàlla rek temps xam nga ñu ngi toog di gàkkatu nekk suñu ko xam nga di entraîné waaw di def. bu ñu jugee jigéen dama caat yóbbu dem delluwaat delluwaat fi mu mëninam. waaw non xam nga rek ñun moom wax dëgg yàlla lamb ji passé xam nga rek ni mu demee ko quoi mais nag sant yàlla noonu la mënoon demee ñu ngi sant yàlla baax a baax fàtte nañ ko ñu ngi waat suñu geneen ñu ngi waat suñu avenir xam nga ne yàgg defal nañu ñu am combat ñu ne Feu Rouge yàggatul dara le 18 mars bii nii xam nga loolu soriwul ñu ngi koy waaj bu baax a baax a baax te daanaka pare nañ wax dëgg yàgg bis bi rek ñuy xaar le 18 rek ñuy xaar ñu ñëw wane suñu bopp bu soobee yàgg. ay ne pile dafa génn stade Yoff jëlaat lu métti. waaw ñun ñun ñun kenn xamee ñu ay ay combat yomb wax dëgg yàlla man sama naataangoo rek laay jël jàpp naa ne Feu sama naataangoo rek dox nañ combat bi saf d'accord nañ ñu jël ko te dañuy bëre bu soobee yàgg naa ko duma naa ko daan Fodous a Fodous taay bi moom. waaw Fodous non Fodous amul benn taay yooyu du dara ay taay ak yooyu yëpp du dara en tout cas li am solo mooy nga 18 mars bi incha allah Fodous boo bi si fi nga génn suñu bu baax a man may xawee Fodous mag si nga xam jeexal na ma mag daa teel a bëre du mag. non non non non Fodous mag la ñun ay xale lañ Fodous ay armée yow ay armée yi sax Fodous moo njëkk a bëre kon ñun bu ñu ba dab ko di moom sant yàlla mais ñu day xar gañ li ñu war si làmb ji mooy dem ne ba taxaw ñëw arbitre sifflé ñu dox si kawam duma ko daan ko te loolu la ñuy def. est ñu dox si kawam duma la. non Farouz mag man xale laa man li ma war laay def te lenn bu tasa moom ma war mooy dox si kawam duma ko daan ko loolu moom ma war. dama fas yéene duma bu baax a baax baax bu baax sax duma ko. xeexee eh. war na yàlla bu xeexee dama koy duma loolu bu baax loolu amul sax dañuy bëre dañuy xeex dañuy bëre làmb ji moom bu soobe yàlla dinañ xeex dinañ bëre. bu dawee xeex bi sax du si mucc force damay xeex ak moom. barki yàgg du si mucc force dañuy xeex. Farouz biir gars yi wagaa dina xam ne maa ngi dégg nag ay waxam parce que tey dem nañ def face à face gis na ni mu nekk di def. mag non mag bu moom nekk foofu noonu xam nga saaga di def yëfi gars yoo xamante ni yooyu yoo xamante ni man maa ko waroon def xam nga mais nag sant yàlla moom day wane ne que rek moom wérul yaa moom mais nag dinaa ko faj bu mu wér. dinaa ko faj bu mu wér bu soobee yàlla yal nañu yal nañu yàgg defal jàmm bëgg 18 incha allah bañ. li ma ko yóbbante mooy yal na ko yàgg defal jàmm defal ma jàmm ba bis ba incha allah bi yàlla may ma ndam si kawam bu soobee xeexee mu duma ko bu bëree ma daan ko